ku mel ni yow bu rap bu bu bu corrigé woon yenn euh, affaires yi wala yenn combat yi ko Ousmane Sonko engagé te yow nga xam état bu baax xam na doole état bokk nga ci parti boo xam ne moo nekkoon moo yoroon euh, état bu foor ba état di gën a fort boobu yaa ngi woon foofu est-ce que yow en tant que grand frère du woon sa rôle aussi nga nga nga jàppale ko. mu mu mu mu mu corriger certaines choses même bu fekkee ne vous êtes so c'est un leader c'est un leader qui compte aujourd'hui mun nañ jàpp ne c'est le chef de l'opposition parce que euh, il est arrivé troisième à la présidentielle même bu fekkee ne yow bokkoo ci woon mais c'est le chef de l'opposition aujourd'hui en bu ñu génnee ci présidentielle bi euh, fàtte Idrissa Seck tuuti <laughs> parce que Idrissa moom kii na mais est-ce que du woon sa rôle nga rappeler ko alors xamal que ne état kenn du ko engagé nii. parce que yow lii Ousmane ko def malgré que yow nekkoon nga ci situation bu méttee métti yow mosoo ko def mosoo ko waxee. awma droit rappeler ko alors parce que responsable la nag ni man yor parteem ñoom ak seen parti ñu am lu ñu gëm ñun nag ñu ànd la ñuy waxtaanee suñu biir nag duma la ko wax fii lan laa ko wax ak lan la ñuy def ak duma la ko wax fii wax naa la yooyu. faut même pas ngeen yaakaar man la ma la ñu dund biir yeewi man la ma génn di ko wax jamais de la. mais yow yow yow Sall su ma ko waxee xamuloo ko su ma ko waxul xamoo ko donc da ngay wax sa xalaat rek.